ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat tv ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey dañu ñëw ci vidéo boo xam ni li ko sabab mooy benn élément boo xam ni sa tv da ko produire jëme ci Guy Marius Sagna maanaam pour ñu bari comprendre ni mu demee kii di may Maimouna Ndour kiñ ne moom moom sa tv loolu nag waxin la diggin la laaj te bu ñu xuusee ci biir vidéo bi di ngeen comprendre lan moo tax ñu ne leen ki ñu présenté ni moom moom 7TV tey dañuy àndandoo traité benn cas d'école ci lu monde di journalisme au Sénégal lobby yeeg teg dil bi tappale bi ak wéeru ci ay boromi ndombal tànk ba taxawal sa média pour di def luñ naan propagande mensongère wala boog manipulation de masse donc Maïmouna Ndour en mission commandée parce que dañ koy comprendre li muy def du moom ku lekk avant su nguur faaw nga bëre faaw nga def des sales boulots te tey ay leer donc Maïmouna mu bind texam waaye assumé wul pour wax déedéet ca ña koy liggéey la tànn pour ñu récitel ko benn texte bu mu bind moom pour ne dafay weer fay attaquer Guy Marius Sagna traité nako de faux activiste traité na mana de yalwaankatu auto manam mi ngi melni ku djuk pour ne fay tilimal wala yàq doomi aadama lu tax nag mbir yi interpellé ñu du sax pour layel Guy Marius Sagna ndax ñakul ay argument pour défendre bopam tay tam japp na ni di attaquer ku melni mom moy yaangi ngi jundi sénégalais yi ko votel nako yow gi marissa ñala ñu tan yaa ñu doy ngir nga teewul ñu assemblée nationale li rek doy reconnaissance sénégalais yi atté ku mu métti nag mën ngaa naan ji wala poudre mbout di xaar sa busu fatou ndax dese na la yeneen ñenti at yu war souffrir ci dëgg gi mi taxaw di ko assemblée nationale pendant que yow mi koy xas yaa ngi ci bureau ministère financement pour salaire. monsieur le ministre Amadou Mansour Faye yow yaay kan la Sénégal of di la convoqué nga ne dem askanu Sénégal menacé wu ngay menacé ay journaliste naan boo ma ma dal sa kaw yow yaay ministre de l'intérieur bi

yow mosoo toog huit mois te kenn fayu la man député du ma toog huit mois te kenn fayu ma. lu tax nag attaques yi ñu jubal jëmee ko ci jàmbaar ji interpellé ñu mooy kii dal ci kawam mooy kan dafay jariñ réew bi wala dafa dëkk ci di dundee ñàkku sénégalais yi ndax Sénégal léegi dafa neex lool ba ñi waroon noppi wala boog di làqatu ndax yor nañ ay mbóot yu baree bari yu leen jaami xamal ba noppi bàyyi leen ci biir. ñoo ñi ñuy jóg léegi am audace ak ñeme di dal ci kaw ñoo xam ni dañoo sacrifier lépp seen carrière seen njaboot seen wér-gi-yaram ba ci seen bakkan pour Sénégal baax Maimouna Ndour fay mooy kan ñi seetaanoon interview bi mu defoon ak journaliste bii Adama Gaye du ñàkk ñu jëli système mu dóoru bi muy doxalee mais dafa mais les sénégalais comprendre. ah oui yo yo yo yo yo yo yo télévision télévision comme comme journaliste dama dama dama juger parce que vous êtes assis sur des choix qui sont pas les nôtres donc mais un Guy Marius Sagna. waaw bu ñëw toog. waaw euh, journaliste di koy poser question am nga droit laaj ko. mais am nga droit tontu parce que ñun xam nga ñun li ñuy laaj. du ma ñu war tontu. non xam nga ñun li ñuy laaj. li c'est pour aider les Sénégalais. à mais il faut connaître les Sénégalais aussi à connaître ce qui s'est passé pour certains pour quand certaines personnes sont devenues milliardaires wala il faut ñu wax ko. donc dañuy reprendre kàddu Maïmouna yi mooy faaw ñu dimbali Sénégalais yi pour ñu comprendre xam kan mooy kan. tey balaa ñuy xuus sulli mbóot yi dañuy dellu tuuti ci ginnaaw xamal ñenn ñi évolution wala histoire média yi fii ci Sénégal genre exposé bu ndaw par parloo ci wàllum tasum xibaar depuis les indépendances lu fi am la waaye melul woon comme ni mu mel tey nga xam ne ñu bari ci sénégalais yi mënatuñ xàmme kan mooy kan ak kan mooy liggéeyal kan Senghor amoon journal Le Soleil bu koy xalamal subaak ngoon ñëpp xam fu ñu féetee te ba tey fi ne suñu maam suñu royukaay Cheikh Anta Diop créé woon journalam tuddee ko Siggi d'ailleurs Senghor dafa censuré woon journal bi parce que nee na baatu Siggi bi dafa am faute benn G la waroon nekk alors que Senghor moo juumoon jaawale mbindum wolof ak mbindum tubaab. Cheikh Anta Diop mujj soppi turu journal bi tuddé ko taxaw Abdoulaye Wade moom itam créé journal soppi pour mën di yi fi bopam ak liko neexul ci réew mi bobu mi ngi nek opposant donc jamono yi ku ne xam nga kanay kan lu ne kan moko mom ak bo fa démé lo fay fekk waye bi libéraux yi jëlé pouvoir bi nak buñ ne libéraux yi moy digënté l'an 2000 ba tay ji ñuy wax ak yéen nguuru maître wadak bu Macky Sall ci la puccoxoo bi tàmbali ci le monde des médias au Sénégal ba xàmmetuñ kii kii li war lolu moy ministre ba directeur général bu nek gannaaw ba nga ay milliards milliards da ngay fexé financer ben patron de presse wala nga ngéem ab journaliste mu taxal média bopam mel ni moo ko moom loo xam ne yow doo ci feeñ pour mu lay defal propagande mbaa di la taggal say maam moom la doyen Adama Gaye di journaliste yàgg ci métier bi doon junj léegi ci intervention am. yow yow am nga télévision ba am nga télévision fii nan nga def ba am ko lu wax ñu jox la ko waxal su foog nga ne su ma defuloon comme su ma defoon comme du ñu ma jox lu nekk dama ko deful.

yan directeur généraux lay le rendez-vous ci yenn hôtel de la place le restaurant yi xolol ndax mi ngi jot ci yenn financement nguur tay buñu ñu suñu cas d'école biñu ñu traité tay muy le profil mëna Ndour fay la vérité moy amul capacité créer média surtout li ñuy woowee ci jargon journalisme un média lourd comme la télévision journalisme fayul Sénégal ba benn ndaw soo xam musul ci xibaar yi salaire ci Sénégal ci journaliste la bokkoon lim daan fayee ku bariwul kookee xëy na investir nay de millions ci benn média dañ rek exemple ki a Ndour invité woon lundi 12 juin 2023 muy le recruteur de Nervi Doudouka, comme que a léegi am nay suq yu nañ ko laaj cabinet bii di 3M universel nga xam ne da ko créé dong pour di ci recevoir ay financement illégaux lu mu sëkk ak Ka ba ànd ak moom en 2022 pour ne dañuy jaay ay carte membre APR te moom mii di lëkkaloog waa joo xam ne dafay recruter ay nervi pour ñuy attaquer ay jàmbur ñooy taxaw mel ni ku yëgul li xew naan dañuy dal ci kaw ñuy woote résistance maanaam ku jóg pour gaañ la nga Nous, croyons au, à son excellent président Macky Nous croyons à notre leader Doudou Kaparam Casamance. Que le 23 janvier, nous appelons le président Macky Nous disons Doudou le journaliste aurait accepté qu'un homme politique fasse appel à la jeunesse pour une résistance, pour un combat final te mu leer ñu ne appel à la résistance bobu appel au combat final c'est c'est de la violence c'est pas un combat pacifique est-ce que lolu yow mu accepter d'un homme politique comme Ousmane Sonko. donc li lañ nane hypocrisie affiché un dawal kabo yi mais pour dellu wanaat leen ni ndaw ci doyee dangereuse dañuy ñëwaat ci xibaar bo xamni ni ko te ba tey gisuñ tontoom muy l'affaire Prodac bi nga xam ni moom Maimouna Ndour da cee recevoir 63 millions 950 mille ci tàppale ak yu njuñ njaaj maanaam pour sénégalais yu comprendre ñu mel nii naka la ñuy financer seeni médias mooy dañuy ànd nguur wala bokk yenn ci ay ministre ak DG yor leen mais yor boobee newul di leen viiral xaalis chaque mois déedéet. dañuy créer seen beneen entreprise ci wet bi boo jëlee par exemple Maimouna Ndour dafa créer benn cabinet bu ñu ne dafay yëngu ci wàllum communication tuddee ko 3M universel financement yi foofu lay jaar projet événement ba programme politique bu am gars yi na ko yow la ñuy dénk communication bi viréel ko ay millions ci lu tegul ci yoon mu encaissé denc compte bancaire am fay ci salaire dikke manipulation suba ngon parce que bu nguur gi daano moy yakuna donc lu meun pour xalamal len wolbeutiku di dal ci ñi opposé wu nguuru Macky Sall du koy def ndax intérêt lay préserver donc ci même technique d'or yoy nonu lañ ko cédé won 63 millions 950 000 francs CFA ci programme bi di Prodac ay enquête japp ko loxo ci poche junjoon nañ ko ci vidéo biñ defoon ci dossier Prodac boobee mais tey dañ leen di wan naka la waa IGF jàppee Maimouna Ndour en flagrant délit non seulement pour wàllum luubal alalu mbooloo li Sénégalais yëpp bokk mais aussi ci wax lu du dëgg ci kanamu enquêteurs yi. bi enquêteurs yi defee woon seeni gëstu ba découvrir ni kii di Maimouna Ndour jébbal nañ ko 63 millions 950 mille ci turu cabinet bi di 3M Universel pour nee na dafay fësal liggéeyu Prodac à travers ay publi reportage te Prodac programme état la dafa war am appel war waroo xëy rek jox communication bi ku la neex bi loolu amee waa IGF dañ koo déglu moom Maimouna Ndour ne ko lii nu mu demee ndaw si daal di wax lu dul dëgg ne signé wul ak état bu Sénégal contrat waye entreprise privée bi di afrique te bok ci ñi financer programme bi di Prodac ñom le signé contrat d'ailleurs Mame Mbaye Niang moo leen boole. enquêteurs yi dem ba ci directeur général afrique muy Khadim Ba tay de di jox ay tur pour mu gëna lèr ne ko ndax li ndaw ci wax deug la nee ya yaa ko contrat de communication Khadim Ba ne len waxul deug moom Khadim Ba mooy wax mu ni def en tant que bailleur kuy lebal état bu Sénégal khalis mooy dafa jot ben mel bu jigee ci wa product te jamono yoyu ku ñaan Mamina dafa jité won ko Mame Mbaye Niang doon kilifam donc ñom ñi ëmb product néna ñoko envoyer mel deur Khadim Ba won na enquêteur yi mel bobé gaay nako joxal may mënu Maimouna fay 63 950 000 moom mu envoyé ko ndax bailleur dong la maanaam lii li muy tekki te IGF leeral na ko ci rapport am mooy Maimouna Ndour gañe na marché wu état te jaaru ci appel d'offre marché yaa ma neex lañ ko def dañoo violer ko des marchés publics benn ñaareel bi mooy prestation bi mu wax ni la defal waa Prodac muy wàllum communication kenn gisul contrat bi maanaam Sénégal rek ngay gis ku encaissé 63 millions 950 mille te du këyit buy firndeel collaboration bi waaye bi ci gën a garaaw te waa IGF ñoo ko wax ci seen rapport nee nañ liggéey biñ ne ndaw Sédakoo defal waa Prodac muy fësal programme bi ba moment bi ñuy mën a enquête bi ndaw si defu ci dara ba dara booloo jeex donc il faut que sénégalais yi xam naka la benn groupe. Ben clan bu ndaw nek di paccoo suñu xaliss wëlbatiku nag di ñu fontoo di jaay arrogance ak tuumaal gor yi li liñ ci mëna a moy bu ngeen gisé lu tax yenn ci journaliste yeeg ñi woy seen bop patron de presse de ray seen bop pour défendre ma ci Sall defuñ ko parce que dañ ko gëm wala rafet lu bilan c'est parce que nguur fay duufal seen poche dañu teud nelaw ba yàndoor xamuñ sax li xew ci réew mi toog ci plateau télévision di manipuler ak lëndëmal xel yi ñu leen di viral seeni millions ñu koy noos ak seeni njaboot ndeysaan liggéeykat yi leen di dunguru ak jëlal paar ñu leen di mosal te a doy lu tax ñu yaakaar ni tekk nañ alors que ñoo ngi leen di exploité comme pas possible donc kii nga xam ni moom dafay sàcce xaalis senegal dafay ànd ak ay luubalkat ñu koy viiral suñu xaalis bi ñu bokk ñun ñëpp nee na mooy taxaw ne dafay xas Guy Marius Sagna lii sénégalais la ñuy bàyyi ku ne def sa conclusion kon tax seelu bi tey loolu woon ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa jëf